salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi waat fii ak ki nga xamante ne nii moom moo di euh, Serigne Abdou Latif Seck di euh, jàngkatu xasida dañ koy daal di euh, bàyyi rek mu daal di nuyoo. laylatu mawlidi nabi laylatu mawlidi nabi laylatu mawlidi tabi wa turisi taasumi mawliduhu muassamu mubarakul muxtaramu taasimuhu yal xaatimu على سبيل تقدمي مولده مؤسم مبارك محترم تعصمه ينخاتم على سبيل تقدمي yaa ngeen jëf noo ngi siyaare bu baax a baax di bëgg dajeeg yéen fii di santaat sëriñ Touba bu baax a baax ci bis bi ñu am taw féexi fekke ko te parce que yéene ànd ak Serigne Saliou Thioune mii di xalifa Serigne Béthio Thioune moom sëriñ Saliou nag Abdou Latif Seck laa tudd di taalibe Serigne Béthio bokkoon ci ñi mu jox Serigne Saliou mu yar leen ba wàcc leen jëlaat ma tegaat ma ci loxol Serigne Béthio ba may ànd ak Serigne Béthio léegi nag 83 la ba léegi euh, taarixu gàmmu gii nag. mooy dañoo mës dem ci Serigne Saliou gàmmoo fa bi nu gàmmoo ba gàmm gi mat bi ni sëñ bi yeewi ni sëñ Béthio bis ni ki tey daam fu Serigne Touba tolloon ak seexam yi seexam yi ak seeni mbooloo moo mel ne jamono dañuy dox ba àgg si mag yow mu ne ko ah, Mbàkke tolloon ak seex yi mu ne ko Serigne Touba daa daan woote gàmm ca njaareem seex yëpp daan ko fi fekk ak seeni mbooloo loolu dox ba yàgg. na seex yi ñëwee ak seen mbooloo dem ba xat fan gàmmoo ci njaareem am bis gàmm gi mat nag ni nii mu def rek sëriñ bi woo seex yëpp ne leen bis ni ki tey digal naa leen neen woote gàmm ci dëkk yooyu ma leen sancloo ndax yëf yi dem na ba xat te kenn ku ci ne lay dundal dëkk ba nga ne mooy dafa woote gàmm gi loole nag maag yow sëñ saale bu mooy wax ni sëñ beetu maag yow dañuy dox nag ba àgg ci kon bis ni ki tey digal naa la gàmm gi nga may fekk fii digal naa la nga waxay woote foofee ca Ndakaaru mun ko ah Mbàkke sant naa bu baax ci ndigal gi ma jox ndegam nag yaa ma jox ndigal ci gàmmu gi man de wóor na ma ne yaay sëñ Tuubaa sëñ Tuubaay Rasulullaay ma bëgg nag nga defal ma gàmmu gi fépp fu koy defee ci àdduna bu ma kenn ëppale yool bu ma ci ëppalewul sëñ Saaliw ni ko defal naa la ko gàmmu ma njëkk woote maa ngi ko sëriñ Saaliw yëkkati ay nag ni ko maa ko tàmbalee barkeeloo ko ci gàmmu gi yëkkati warga ak sukkur ay keesu warga ak sukkur yët ko ko yëkkati kuréelu xasaayit ku ne xam na waa daara ndookaa daara mi ñu wax daara yi ndookaa bokk ci kuréel yi nga xam ne ñoo dàq jàng ci xasaayit ca yooyu jamono mu yónnee leen ko ngir bëgg ñu jàng gàmm gu yëpp ñoo ko jàng keroog sëñ saalu daa daa dajale waa kër gi yëpp neen de képp ku bëgg lu ma neex na nga dem fekkee ji sëñ Béthio gàmmam googu muy wote Ndakaaru loolu nag mooy mooy taarixu gàmm gi kon noonu noonu lañ koy leeralee rek. ñun nag noo ngi sant bu baax a baax ci taw fekk gin am fekke loolu yi ñuy dox ba tey jii ñu fekke ko waaw mu mel ni loolu kat mooy lii ñu fi bàyyi li fi Sëriñ bàyyi lislaam bàyyi ko fi muy kilifa gu fi jóge dañuy seet sa njaboot ki fi mag tey góor ñu jiite ko mu jiite jiite njaboot ji jiite taalibe yi boobaak léegi nag sëñ Saal lu mu ci yokk rek wàññiwu ko ñun ñi àndoon ak sëñ Béthio démb ngir fonk wëllëre ñun sax la gën a fonk ñeneen waaw dañuy woo ca këram ga di ànd añandoog ñun dañuy woo di diisoog ñun di waxtaan ak ñun ngir wane rek fonk ga la baayam defoon ci ñun mu fonk ko ànd ak ñun loola ñun ñëpp ñu fas yéene nag wékku ci kër Serigne Saliou ànd ak sëñ Cheikh Mbacke di ko déglu sëñ Saliou déglu sëñ Cheikh ñu déglu sëñ Sall rek fas yéene tegu ci taalibe te ñaan sëriñ bi euh, nangul ñu ko ci barkeb sëriñ Sall bi Mbàkke barkalla gàmm gi nag euh, ni ci sëriñ Touba féete ak ni mu ci mel àdduna sépp dañ ko war a xam lu gudd la nag waaye ci tënk sëriñ Touba danoon lil Moustapha nawaytuma yuy jaddidu sunnatu xamraawe inni ahmadu Muhammadu Rasulullah bi nga xamoon ni naar bu rafet ba nga xamoon di doomu Amina takk Abdullahi jëmmi nit googu bokk ak leer ga ci moom ba tax muy xayrul wara leer ga nekkoon ci moom nag mooy Ahmad moo tax Sëñ Tuubaa wax ne yoon yu fi yonante bi maanaam jiite woon muy lislaam mu wàcce ci moom mu koy doxal ba mu jóge fi daa dem ba mu mel ne lu ràpp yoon wa Sëñ Tuubaa nee na man mii nga xam ne nag maa doon yonante bi donn leeram ga nee na man mi maa yeesal yoonu yoonu lislaam yeesal googu mu yeesal lislaam nag kon day mel ni gàmm gi daa dugg ci biir lislaam ba tax na ku ne xam na ni lépp lu rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam kon loolu Sëriñ Tuubaa ko moom tey ndax mooy yonent bi sallallaahu alayhi wa ba tax na kon nii mu ko waxee ci jësu rek te taasimoho bi sunnati yaxudunaa lil jannati da ngeen ko màggal ci sunna lépp di lislaam dig bi di aw yiw toggi bernde sëñ Tuubaa wax na ko ci biir jës bu fay na ko xat xadara mawlid afdal wara moo aziman mu bashira bi sukkarin aw lax mi nee na nañ koy màggal ci na nañ ciy defi bernde rawatina lu jëm ci lu saf sukar ak lu jëm ci ndawal noonu la ko digle noonu nag lañ koy jéeme fii tey ñaan Serigne Touba nangu lépp ak fépp fu koy màggale képp ku ci am yéene am pas-pas yàlla na nga ci dajeeg mbégum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ndigalam barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah